aussi. non allez-y. li nga wax euh, parce que. il a été il a été un peu long. waaw honnêtement pertinent aussi. voilà euh, il a été il a été un peu long. gis nga Kajoor ñun suñu dee wax ci chrétiens yi c'est parce que nous sommes des sénégalais ñu bokk ak ñoom penc mii nga xam ni moom mooy Sénégal. que quand ça vous arrange. vous la vous, vous je mettez dis, les chrétiens. je dis comme comme comme c'est c'est c'est comme c'est comme c'est comme c'est comme yow. parce que tout à wax nga ba àgg ci Macky Sall presque def ñu jëppi di nga def sa foofu sa appréciation boo xamante ni loolu ça n'engage que toi. c'est voilà loolu ça n'engage que toi. gis nga ce qui s'est passé à Diamniadio ce que le président a fait c'est son devoir il a appelé à un dialogue national mënul obligé kenn mu ñëw uy ko ku nekk am nga sañ-sañu ñëw. ku bëgg a ku bëggut a ñëw sañ nga wax ni du ma ñëw ñi fa nekkoon ci réew mi lañu bokk wala bokkuñu ci réew mi ci réew mi lañu bokk ñu taxaw jël fa ay décision avant dialogue bi ba foog naa le dernier week-end mooy euh, bi muy rencontre bi président di rencontrer la presse nationale la wax ni danañu organiser dialogue lundi ak mardi conclusion yi su ma ko jotee ni ma ko jotee laa koy transmettre conseil constitutionnel lu ci conseil constitutionnel wax ma tënku ci c'est exactement ce qu'il a fait Afrique nag la ñu nekk Sénégal la ñu nekk lu nekk gis nañu ko ci politique mais un président boo xamante ni nii dem na ñaari yoon mu mu mu mu mu mu mu jébbal këyit conseil constitutionnel mu ko situation bi naka la ko président indee président pouvoir pouvoir la à part muy le pouvoir exécutif l'Assemblée ñoo fi taxawal seen comité seen commission d'enquête parlementaire ça ce n'est pas le pouvoir exécutif l'Assemblée moom moo fi def propos ñoo def seen proposition de loi président moo reporté loolu yëpp mën na am. Euh, euh, comment le comment le président l'a porté. président moo reporté élection yi. non mais président moo ko reporté parce que. mais reporté boobu moo andi conséquence non non non non non madame madame madame Camara madame Camara l'Assemblée nationale c'est un pouvoir constituant. L'Assemblée nationale c'est l'Assemblée nationale qui a voté le report de, des élections avec députés. qu'est-ce que le président lan la def report boobu c'était pas report boobu c'était illégal je dis encore mais ah, man je ne suis pas dans la logique de PDS et Benno report bi c'était illégal logique bi ma c'est l'Assemblée nationale qui a voté ce report-là avec 104 députés. conseil conseil conseil constitutionnel annulé na ko. waaw euh, valable. attends actuellement fi ñu nekk. waaw mais boobu valable. non attends attends mon frère mon frère. xam nga en réalité. Mm. notre plus grand problème mooy tey nous n'arrivons plus à distinguer notre opposition nous n'arrivons plus à distinguer notre opposition parce que vous ne me permettez même pas mënu leen ma may sax fu ma développer li nga xam ne moom. laa ah, non non non parce que euh, comment dirais-je euh, tur bi naka la encore. Pape Malick may ma ma parce que. ah may naa la parce que ce que le conseil constitutionnel a fait. Ouais. le conseil constitutionnel l'a fait après après l'action de l'assemblée nationale. le président bi ko assemblée nationale bindee lan la wax je prends acte léegi est-ce que président dafa wax assemblée nationale ni bu leen réunir est-ce que président dafa wax assemblée nationale ni seen proposition de loi bu leen ko bu leen ko jàllale il n'a pas ce droit sañ-sañam fi mu yemoon mooy il a l'assemblée c'est une loi constitutionnelle majorité qualifiée des trois cinquièmes de l'Assemblée nationale moo koy jàllale loolu di dëppoo ak 99 députés et 104 députés l'ont voté. xam nga ex exécutif fan la